kon mbokk yi alhamdulilah wa sallallahu wa sallam ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain ñi ngi dellu siwaat suñu téere bi di risaala bu ibn abi zayd alqayrawaani ñi yëgsi woon ci la nga xam ne nii moo nekk ñaar fukkeelu bunt bi ak juróom-ñeent ñu ñëw ca jeexital ba war a jël tey li ñuy tuddee al aqiqa bu dee ne yenn mool français bu xonq bi yaa ngi ci page 62 bu dee ne samru daani bi ci arab bi yaa ngi page 408 boo xoolee ci ñetteelu ligne bi rek wal aqiqatu sunnatun mustahabba naam kon mbokk bu dee gis nañu day wax fii rek ne wal aqiqa sunnatun mustahabba aqiqa mi ngi gën a siiwe ci gàtt ba ñuy rey ca bisu tudd ba wa yuaqu an anil mawludi yawma saabi'ihi bi shaatin dees na reyal ay rendil ñeel xale ba juddu ca bisu juróom ñaareel ba ci benn gàtt misla ma zakarna min sinni l udxiya wa sifatiha wa sifati sifatiha mooy lu mel ni ca lañ waxoon ci atu tabaski ak melokaan yañ waxoon ca melokaanu tabaski wala yuxsabu fi sab'ati l ayaami kenn du konte waala nag ca juróom ñaari fan ya alyawm alladi wulida fiihi mooy bis ba nga xam ni ca la juddoo wa tusbahu daxwa dees na ko rendi ca la nga xamee ni nii moom mooy ca yoor yoor wala yumassu sabiyu bi cheyin min dammiha kenn du laalale xale ba nag ci lenn ca deret yi lañu rendi wa yu'kalu minha dees na ca lekk wa yutasaddaqu dees na ca sarxe ba tey wa tuksaru idaamuha dees na damm it la nga xam ne mooy ay yaxam kon mbokk lii day wax ci wàllu tudd mooy gàttub tudd mu ne sunna la bu ñu sopp loolu day won ne ki am doom tudd ko it loolee amu ci benn bakkaar allahuma am na yeneen i boroom xam-xam yu gis ne dafa war ndax la nga xamee ni yu leen ci bari sam da koy wax kullu gulaamin rahinatun bi aqiqatihi tusbahu anhu yawmu saabi'i mawlidihi yonent bi alayhi salaam ne doom bu nekk des na ko tayle ca gàtt bañ koy reyal bis juróom ñaareel ba am ñenn ñu ci koy déggee ne la nga xam ne nii mooy relation ba am ci diggante baay ak doom ba ay jaami yàlla doom ñu ko koy bindal bokk na lu koy def mooy gàtt bañ ko reyal waaye almuhim bu dee mazhab malik ñoom dañ ñi sunna la sopp nañ ko boo ko defee baax na boo ko deful amul benn problème ci loolu mu ni gàtt bi dañ koy reyal xale bi te bisu juróom ñaareel ba bokk na ci loo xam ne nii bu ca sa doole yeggee moo gën mooy bu dee doom bu góor ñu reyal ko ñaari gàtt bu dee doom bu jigéen ñu reyal ko gàtt waaye benn gàtt bi moom mooy la nga xam ne mooy sunna bu dëgër ba gàtt boobu nag moo gën lu dul gàtt masalan am doom nga reyal ko giléem wala nag am doom reyal ko gàtt moo ko gën ndax yenent bi sallallahu alayhi wasallam ab gàtt la ci digle ci saxaaba yi ay gàtt lañ doon jëfandikoo doonte ni lenn ci riwaay yi day wax ni anas amoon na benn doomam bu mu reyal giléem waaye ku mel ni yaayu Aïcha moom da doon bañ loolu mu ne yonent bi alei salatu wasalaam ay gàtt la ñuy digaloon kon lu mu mën a doon xar moo ko gën suñu amul xar ñu wuti béy su xar ak béy amul nag ñu doog a seet leneen lu ñu rey loolu mi ngi wax ci bisu juróom-ñaareel bi léegi am na benn xadis boo xam ne borom xam-xam yi dëppoo wu ñu ci ak wéram lenn ca ñoom dañ ne xadis bu wérul day wax ne bu dee bisu juróom-ñaareel bi dala rëcc da ngay bàyyi ba bisu fukkeel ba ak ñeent gannaaw ba ñaar fukkeelu fan ba ak benn waaye xadis boobu buñ d'accord rek boroom xam-xam yi di wérul dañuy gis ne lañu sopp ci reyal ab gàtt mooy bisu juróom-ñaareel ba su dee ne amoo ko ci bisu juróom-ñaareel ba foo ko amee nga koy rey jarul xaal fukk ak ñeent wala nangam même bu doon dafay dem ba am at même bu doon yow yaay dem ba yéeg ne kat ba ngay judd sa bàyyi loxoom jotul woon gannaawam ba reylu la gàtt yow man ngaa reyal sa bopp ab gàtt ba ñëw na ci ay riwaaya ñu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam reyal na boppam ab gàttu tudd loolu kon amul fenn fu mu yem donte ne lañ ca sopp mooy juróom-ñaareel ba waaye bu rombee it amul fenn foo xam ne nii fa la yem bokk na ni mu wax mu ni lay valable ci tudd mooy lay baax ci tabaski mi ngi noonu loolu la ñu wax lay baax ci tabaski allahuma ne nag am na yeneen borom xam-xam yu gën a indi ak yombal ñoom ñu ne yonent bi alayhi salaam gàtt rek la wax kon boo reylee sa doom gàtt sa jaan wàcc na amma nag lañ wax ci tabaski yonent bi alayhi salaam ne ñeenti yi du doy comme ni ngeen ko jànge woon ca gannaaw mooy bu feebar ba bu lafañ ba bu patt ba bu loof ba ila axiri loolee lenn ci borom xam-xam ñoom dañ ne nañ ko chartoo ci tabaski chartoo wuñ ko ci loolu allahuma lu dul comme ni mu ko jàngalee nii yeneen borom xam-xam yi dañoo gis ne gàtt ba ngay rey ci tabaski yaa ngi ciy jublu jaamu yàlla gàtt bi ngay rey ci sa tudd yaa ngi ciy jublu jaamu yàlla bokk na ci lim jàng sànq mu ni bis bi mu juddoo kenn du ko ci boole bis bi mu juddoo kenn du ko ci boole looloo tax ba li siiw fii masalan Sénégal soo amee doom lëndi kan nga koy tudd lëndi nga koy tudd ndax ñoom dañ naan lëndi bi mu juddu duñ ko ci boole allahuma lu dul ñoom niñ ko jàngee nii ci risaala soo demoon xatta ci yeneen borom xam-xam mazhab Maalik ñoom dañ ne lu dul mu juddu avant fajar masalan tey jii waxtu wi ñu toll ñi ngi ci altine tey jii ñi ngi ci guddig altine une fois que jant bi sono rek tey ñi ngi ci guddig altine loolu kon ñu ni boo ñoom boo amoon doom ci guddi gi kon dañuy calculer xale bi altine la judd kon dimanche lañ koy tudd mais bu fajar xisee ba jot pour ñoom guddi gi dem na kon bis boobu kenn du ko considéré ci pour ñoom kon juróom-ñaareelu fan ba mooy altine bi mu judd woon loolu moom mooy li gën a siiw ci mazhab Malik donte ne ne boroom xam-xam yi bari d'accorduñu ak ñoom ci loolu ndax ñépp xam nañ ne bis mooy bis mi ngi commencé fi jant bi sawe mi ngi jeexee fa jant bi sawe ci ëllëg lan mooy altine tey ñu ngi ci altine ñu ngi nii guddeeg altine kañ lay jeex bis bu ñu demee ba jant bi soo ëllëg bu ko defee guddeeg talaata daal di dugg kon xale bi fu mu mën a juddoo ci jour bi dañuy jàpp jour un mooy tey kañ lañ koy war a tudd septième jour lundi la judd dimanche lañ ko war a tudd dimanche la judd samedi lañ ko war a tudd loolu insha allah mooy wax ji gën a dëgër allahuma nag jarul aussi lenn ci ndaw ñi di ci xëccoog seeni wayjur ay gisin la yoo xam ne loo ci def rek baax na mi ngi noonu loo ci def baax na donte ne ni la gënoon mooy juróom-ñaareelu fan ba mu ne gàtt bi dañ koo war a rey ca yoor yoor mooy xale bi bu amee ci juróom-ñaareelu fan ba nañ bàyyi ba jant bi cinq ba dox lum néew néew quinze minutes nga xam ne ca la naafila di commencé foofu la yoor yoor di commencé mi ngi noonu mooy comme mbokk yi toog ci jàkk ji la xëy ba jant bi fenk ba de heure bi ngay naafile heure boobu la ñu war a rey xar bi mu ne xar bi it buñ ko reyee am na lu jaahiliya daan def mooy dañ daan jël deret yi xar bi ñëw di ko raay ci bopp xale bi mu ne nag loolu da ngay gis ni kenn du def loolu kenn du def loolu doonte ne xar boobu it ba nga koy rey sa yéene mooy sama doom diw dey lay reyal xar bi mi ngi noonu soo ko waxee sa làmmiñ baax na boo ko bàyyee sa xolit baax na xar boobu it yow mi ne Amérique mën ngaa yónni ñu reyal la ko Sénégal comme niñ koy defee ci tabaski mbir bii la ca gën a am solo mooy yéene ba ñuy yéene ca loolu it day doon barke buy dellu ci xar bi ci xale bi mooy sarxeel nañ ko am xar du tuyaa bu ju rëy joo xam ne dafa ñëw àdduna rek commencé am njëriñ doonte ne sarax la boo xam ne bu baax la bu dagan moom caamin yépp daan ci d'accord ndax boo ko reyee da nga ci am tuyaa bay sarax te lislaam may na la nga lekk ca islam may ne la nga lekk ci bu doon da nga koo jël lekk ko yëpp it du tee yow am nga am nga am tabaski naka noonu it am nga gàttu tudd waaye daal la gënoon mooy xar bi nga reyal sa doom nga mayee ci lekk ci daal di ci sarxe loolu mooy la nga xam ne moo ci gën bokk na ci aada yoo xam ne jaahili arab yi dañ ko daan def ñoom dañ naan ab xale buñ ko reylee dara kenn du damm yax ya am na sax xadiis ci rot waaye xadiis yooyu borom xam-xam yi dañ ne wérut su ko defee gàtt bi comme yeneen gàttu tabaski yam rek dañuy damm yax ya teqalee yàpp wa togg ko lekk wala ñu sarxe ko mi ngi noonu loolu kon mbokk dañuy gis ni moom mooy la aju ci loolu amma bu ñu reylee xale ab gàtt gis nañu ne dañ ko war a jox aw turit doonte ne tur woowu ak gàtt bi nekkul luy lënkaloo comme niñ koy miine tey Sénégal imam bi dañ koy indil xale bi mun a ana gaa yi yar xar mi ñu la waaw mun a acce waaw xaar leen suñu paree rek mun a acce nañu rel bi ñu daal di mingeli joxe tur beeg ren di xar bi mbokk loolu suñuy wax rek la xale bi mën nañoo xëy tudd ko gannaaw bu doog a rey xar bal xale bi mënees na koo tudd avant juróom-ñaareelu fan ba ca loolu mooy sunna bi yonent bi alayhi salaam mujj def dafa xëy suba rek ne wurid lii laylatul gulaam sammaytuhu bi abi ibrahim démb day dañ ma yàlla wërsëgal na ma doom bu góor tudd naa ko sama baay Ibrahim loolee kon mi ngi noonu amul benn rapport ci joxe tur bi ak rey xar bi comme niñ koy defee fii tey joxe tur bi ak wat bi amul benn rapport mbooloo mi yépp a toog bàyyi seen soxla ñu indi xale bi ci imam imam ni non non non dem leen wat ko avant ñu koy tudd déedéet boo waxee ñu ne waaw watara mi ngi noonu mi ngi noonu moom la ma seet borom xam-xam yi wax waaw waaye mbokk loolu amul la nga xamee ne mooy tur bi ak wat bi ak rey bi ça n'a rien à voir ci bii jëkk bi teggu ci amul benn rapport xale bi mën nañ koo tudd doo koo wat mën nañ ko wat doo koo tudd mën nañ ko reyal doo koo wat ma ila axiri amul benn rapport buñ ko war a tegalee ci seen wax yooyu ñuy wax ñoom su ko defee kon bokk na it looy war a xam bokk ci wàllu googee xam ni tur yi gën moom mooy tur bi nga xamee ne nii dafa nekk abdullah abdurahman yeneen ci bàyyi soom ne tur yooyu ñoo gën ah ah waaw waaw xam naa xam naa yeggaguñu ci kii xam naa ñu ngi yem ci tafsiri izamuha waaw léegi tur buy gën mooy loolu gannaaw ba tur bu rafetu lislaam it ñu war ci bàyyi xel moo am nag tur yoo xam ne nii islam da koo bañ mooy bépp tur bu woote ci shirk wala woote ci gaaf masalan sagaru sën kenn bëggul ah léegi mu dem yaa dikkoon yaa nangam yooyu da ngay gis ni dañuy am doom mu faatu ñu am doom mu faatu ñu ne il faut ñu utal ko tur boo xamee ne nii mooy tax mu toog déedéet mbokk julit bépp tur it boo xam ne day woote ci kéefir loolu de julit warul warul warul warul tudde loolu doomam ñu bàyyi xel ci loolu bu baax ci wàllu tur googee loolu mu wax ci wàllu googee foofu lañ yemoon léegi bu ñu jël beneen bind mu ne wa in xuliqa cha'ru ra'si almawlud bu dee dañoo wat karaw bopp xale ba wa tusaddaqu bi wazni bi wasnihi min zahabin aw fidda ñu daal di sarxe ci poam ci or wala xaalis fa zalika mustahabun xasan loolu day lu ñu sopp la lu baax lu rafet la wa in xuliqa rasu rasu rasuhu bi xaluqin badalan min a dam bu dee nag dañoo jël xale ba ñu daal di koy defal tooyal boppam ba ci li ñuy wax xaluq muy genre ndox la boo xam ne day mel ne parfum rek mu safaano beret ja jaahiliya doon def allazi kaanat tafaluhu ljahiliya fala baas bi zalik mu ne loolu dara newu ci mooy heure boo xam ne dañ koy wat ba pare loolu kon la wax ci wàllu googee doonte ne mu ni wal xitaanu sunnatun fi zukur waajiba lii di ak jongal loolu day sunna la ca góor ña sunna la bu war wal xifaadu amma nag wàññil soxna ya ca mooy jongal soxna ya rek fi nisaa ca jigéen ña makruma loolu dañ koy def ngir tere la leen ko mi ngi noonu kon mbokk day wax ne xale bi bu dee dañoo wat boppam doonte ne borom xam-xam yi am nañu ixtilaaf ci ne waaw ndax doom bu jigéen dañ koy wat loolu am na ca ñoom ñoo xam ne dañ koo qiyaas ci aj makka ñu ne kon doom bu jigéen bi su ko wat waaye bokk na daal la nga xamee ne nii moo gën a dëgër ci ay tegtal mooy comme yonent bi alayhi salaam dani bépp góo bépp xale boo xam ne nii judd na nañ ko wat loolee dañ cay boole góor ak jigéen yi almuhim ixtilaaf la ci borom xam-xam yi yow mi doon jàng minhajul muslim da ngay fekk ne ba mu lay jàngal lu ñu war a defal xale ci wat ko danaan la bu dee jigéen la kenn du ko wat waaye loolu daal mi ngi noonu ala kulli xaal wat bi moom comme yonent bi da koo digli amuñu texte bu leer buy tegtali neex doom bu jigéen wu da cay génn lu dul qiyaas bu borom xam-xam yooyu qiyaas wallahu aalam su dee dañ ko wat ba pare mu ne karaw gi dañ ko war a jël peser ko karaw googu en général du passé trois grammes bu dee ay nit ku ñuul sax presque ay deux grammes daanaka lu mu ca yegg bëriwul bu ko defee ñu xool la méngool ci or wala xaalis ñu sarxe ko allahuma lu dul lim wax or loolu ñëwul ci sunna la yonent bi alayhi salaatu wasalaam jàngale ci sunna mooy xaalis ñoom dañ koo xiyaas ci or waaye loolu rotul ci sunna ba nga xamee ne la gën mooy ñu méngile ko ak xaalis xaalis boobu mooy xaalis bi ñuy takk ci loxo su ko defee tey suñu jàppoon sax li gën a bëri ñu jàpp karaw gi war a mat programme ñu laaj tëgg bi waaw garamu xaalis fu mu toll léegi masalan mun nañu gramme bi dal mi ngi ci cinq cent wala six cent kon su ko defee ñu jël mille cinq cent wala maximum deux mille nga daal di koy yéene sarax sarxeel ko sa doom ñu jox ko miskin yi heure bu la yàlla war a sëgalee doom ñu wat ko ba pare ngalawaay jëlal lu mu néew néew mille cinq cent wala deux mille nga jox ay miskin yéene ci saraxe lu mingoog sa karawu doom lenn ci borom xam-xam nag ne philosophie bi nekk ci loolu mooy xale bi karaw bi mu àndal yonent bi alei salaam da koo tuddee aza mooy karawu lor la kon ñu jël karaw googe pesé ko ak xaalis doonte ne karaw go dañ koy suul day wañe ne kon doom bi ëpp na xaalis pour wañe ne ngalawaay yow julit sa jubluwaay sa njaboot bu mu nekk rek yar leen ngir ñu mën a liggéey xaalis waaye yar leen ngir ñu nekk ay jaami yàlla ndax xale bi ëpp na valeuru xaalis loolu kon lay wax ci wàllu googee su ko defee wax nañu sànq ci ne bopp bi buñ ci jël di ci def dara ci wàllu deret ji nañ ko remplacer loo xam ne ay parfum la yu ko dul lor loolu mi ngi noonu mu wax it loo xam ne dafay méngoog li bàyyi di war a defal doom muy jongal ko jongal googee da ngay gis ni mi ngi commencé ci bisu juróom-ñaareelu fan ba jëm kaw heure boo ci mënee jongal sa doom nga jongal ko allahuma lu dul war nañu góor góorlu jongal ko balay majeur bépp doom bépp julit bu am doom war nga koo jongal balay majeur ngi noonu ndax bu demee ba nekk majeur xam nañ ne ay coono la doonte ne ni am na ci yenn ci mazahib yi ñoom dañ ne même bu majeuree dafay war a jong ndax jong farata la boo demoon tey jii ci lu mel ne mazhab malik ñoom dañ naan ko jongul kenn du ko fal imam dañ naan ko jongul kenn du ko jël seede kon nit ki da ngay doon loo xam ne nii da ngay jong rasul sallallahu alayhi wasallam it mi ngi lu woon jong ci fitra mu ne xamsun min al fitra waxoon ca li nga xam ne nii mooy jong wat sa karawu naq wat sa karawu poqotaan lelli la nga xam ne nii moom mooy say wee ak yu demee noonu nga xam ne yeneen ci bàyyi sa sam da ko booloon ci fitra looloo tax borom xam-xam yu jàpp ne farata it ñu jàpp ne ñun dañoo nekk ci fitra yoonu sunna ibrahim te ibrahima bi muy jong am na quatre-vingts ans am na juróom-ñetti fukki at mu des benn masala mag bi nga xam ne dafa demoon bëgg a jong majeur la ñu gis awraam mais ñoom dañ ne maslaha bi nekk ci jong bi moo ëpp awra ba ñuy gis ci moom kon loolu bu ragalul lor ci moom dafa war a dem ñu jongal ko même bu dee majeur na loolu mi ngi noonu waaye nag la gën a dëgër mooy du faraat su ko coobaree defal ko boppam def na lu baax def na lu sunna bu dëgër bu baax waaye yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam bari woon na mbooloo bu daan ñëw di tuub ci diine yàlla ji par centaine par milliers te waxu leen woon ñu dem jongi lu dul ñay dëgërloo jong gi benn xadis lañu wax benn waay bu ñëwoon ci moom tuub ba pare mu ne ko alqi anka sha'ral kufri waxtatin na ko boo demee watul sa karawu kéefër ca nga jong waaye loolu mbokk ñoom ñu jàpp ne farata la waaye comme niñ la ko waxee ay mbooloo dañu daan jóg fu ñu di tuub ci sant leen mën ñu jong kon jong googi sunna la bu dëgër waaye nag duñ ko yeggale ci ne fokk farata lay doon mu ne loolu sunna bu bu dëgër la ci góor ñi amma bu dee jigéen ñi jigéen la ñuy tudd alxifaat te jigéen am na lu yàlla di génne ci payam loolee dañ koy dagg wàññi ko jamono yonent bi sallallahu alayhi wasallam soxna bu ñuy tuddee umu atiya moo ko daan defal doomi sahaaba yi yonent bi alayhi salatu wasalaam ne ko boo koy def bu ca dagg lu bëri mi ngi noonu loolu nag mu ne mak makroma la teral la ñeel jigéen bokk na ci ay expérience lu ci arab yi daan gis ak it lenn ci gaa yi trouvé ko ci médecine jigéen bi bu dee dafa jong mooy gën a set jigéen bi jongul te it loolu day am jeexital ci taaru kanamam te it bokk na ci liñ ciy wax it mooy gën a mën a téye boppam ci dugg ci ak njaaloo rawatina nag bu dee ne ci société boo xam ne ku jongul dañ koy xeeb te ji boo demoon ci yenn race yi lu mel ne soose yi bambar yi ak lenn ci bari la ci alpulaar yi yépp bokk na ay xas yu ñuy xas jigéen bu ñu ne yoo xamoo dara rek mooy xas nañ la xas yu tar mooy yow kenn jongalu la mi ngi noonu kenn du la nawloo yooyu ay aada la yoo xam ne alhamdulilah xëy na léegi bu dee capital yooyu moom jóge na fi mais bu dee ci àll bi moom day nekk problème ci ñoom li ngi mel ni rek yàlla mas ñoo nattoo lu ñuy tudde jamu tuñ gis ngeen jamu tuñ de yu ñuul yooyu am nañ ay temps sunu maam yi fii bépp jigéen bu génn ci jamu woo tuñ kenn du la considéré ba nga xamee ne nii jigéen ñi lu ne la leen daan jaral pour ñu jamu tuñ te ñu bëri dañ ci daan dee sax mais da leen ko doon jaral almuhim mbokk ñu xam ne kon jongal jigéen fu dee ne daal seen aada la ci am na ñu ko mën a def ci normal loolee da ngay gis ne lu baax la campagne bi ñu ci def campagne yëpp suñu état yi waruñu ko woon a def campagne yi waruñu ko woon a def parce que suñu maam yi ñu ngi koy def depuis kenn xamul mais fi mu ne tey dëkk mel ne Sénégal c'est interdit c'est interdit ñu def ko bu ñu la defee dañ day jàpp mi nga noonu yàlla na yàlla jéggal suñu kenn ci mag réew muy sëriñ Mountaga Tall daana xeex campagne boobu mu ne nag boo gisee ñun ñuy xeex campagne contre njongum jigéen mi gis nga bu ñu paree ci jigéen ñi ci góor ñi lañ jëm de yaa ngi dégg bu ñu demee ba xam ne kenn jongal tudd fi jigéen léegi dañ ne kenn bu fi kenn jongal góor yaa ngi dégg loolu mbokk da ngay gis ne am na état yu bëri boo demee pour jongal sa doom bu góor da ngay nëbbu wala ngay indi ko fu mel ne Afrique heureusement liñ ci yàlla defee de surtout ñun jullit ñi mooy juif yi dañuy jong juif yi ba tey dañuy jongal seeni doom te état yu bëri da ngay gis ne doole dañ fam gaa yi ñemewuñu leen waaye bu doon jullit ñi dong ñoo koy def duñ leen ko permettre abadan loolu kon bokk ci ab tënk moo aju ci ngénte ak ci jongal wala ñoo dugg ci bunt bi nga xam ne moo ci tege incha allah xam naa ñu bàyyi mbokk yi suñu amee question bu jëm ci ñaar yooyu ñu laaj ko wala ñoo dugg ci yeneen incha allah su dee am bismillah naam wa ala kulli xaal ñi jongal seen doom avant sept jours loole da ngay gis ne defuñu leen lu xaraam defuñu leen lu xaraam jubluwaay bi rek mooy nañ ko jongal sept jours yooyu sax yahudi moom la ñu siiwe daan ko def seeni doom moo tax ba lenn ci borom xam-xam yi sax dañ naan waruñu koo def du nuru nuru lu ay yahud waaye li ñu xam ne jubluwaay bi mooy ñu jongal xale bi su dee ne médecin yi nga xam ne ñoo yor xale bi gis nañ ne judd na man nañuy fexe ba jongal ko te loolu du ko lor ci dara waxtu wuñ ko mën a jongale loolu da ngay gis ne lu xaram nekku ca wallahu subhanahu wa taala alam naam bismillah waaleykum salaam wa rahmatullah ndax waaw jigéenu jàmbur nga wax pour mu jongal góor waaw ndax góor mën na ko jongal waaw est-ce que comprendre ngeen li mu wax mu ne ah infirmière bu jigéen la déedéet la déedéet déedéet kii liir bi doog a juddu kookee amul benn problème bu ñuy jàng ci wàllu sangu néew jàngoon nañu ne xale bu góor même bu demoon ba passé gul sept ans jigéen mën na ko sang sans problème loolee kon infirmière bi bu dee ne gis nañ ne wala sage-femme bi mën na jongal xale bi même bu ñu bokkul dara bu ko jongalee loolee amul benn problème incha allah xanaa kay fi mbir mi doon nekke mooy tey jii ñu ne ndax dañ permettre jigéen mu dem di jongal góor boo xam ne nii dafa doon lu majeur suñu demee ba jàpp ni lii du farata loolu dañ naan déedéet nekkul lu ñuy permettre ci loolu naka noonu contraire ba xale bu jigéen bi ndax daañ indi góor pour mu jongal ko loolu yi dañ naan loolu du nekk ci loolu mi ngi noonu wallahu subhanahu wa taala alam naam bismillah waaw asalaam dama war a génne sarax bu may joxe ngir sama saraxu doom woowoon naa benn imam imam bi ñëw tudd doom bi ndax la may jël di ko jox imam bi mën na doon la ma yéene sama saraxu doom su dee imam ba ab faqiir la bu ko yeyoo loole boo ko joxee jox nga ko ko ko yeyoo bu dee imam ba du faqiir nag loolee teraanga ba nga koy defal ngir da nga koo déplacé yàpp ay temps loolu warul bokk ak la nga xam ne moom da nga koo war a jël di ko jox ay masakin mi ngi noonu wallahu subhanahu wa taala alam naam naam waaw mu ne am na ñoo xam ne dañuy jël karaw bi jël xaalis bi ñuy jëfandikoo ay xànjar di ko ko pesé xanaa loolu koy juróomi dërëm rek nga ciy teg juróomi dërëm sax moo kii mais loolu du xaalis xaalis bi ñuy wax mooy xaalis pur boo gisee ñuy wax zakaatu xaalis lañ ca jublu mooy xaalis pur bi ñuy def ay lam ak def ay jaaro li jaadu woon tey jii boo amoon sa doom am na karaw nga jël benn jaaro xaalis même bu doon da ngay takk teg ko ci balance jaaro xaalis bi méngoo ak karaw gi wala jaaro bi ëpp karaw gi nga sarxe jaaro bi def nga loolu nga war a waaye loolu lu ci bëri du yomb ci ñu bëri looloo tax ñu koy xiyaas di jël lam méngoog ba bëggoon a jël jënd xaalis bi ci tëgg bi nga jël ko sarxe ko mais waxuñu xaalis bi ñuy jëflante ci wàllu monnaie mi ngi noonu wallahu subhanahu wa taala alam naam naam bismillah naam naam xeeb naa gàtt bi wa ala kulli xaal jàpp naa ne loolu wax nañ ko ci biir dars bi dañ ni bu dee ne da ngaa jubloo sa gàtt doom nga ne xeeb nga ko su boobaa reyal ko gàtt boo paree nga reyal nag nag pour gars yi lu ñuy lekk kooku moom seen affaire la wala nga dem jënd ñaari gàtt loolu bu dee sunna bu dee góora lay sunna nga jëndal ko ñaari gàtt wala nga dem peser ji yàpp waaye daal li ñu bëgg a wax mooy nga am doom reyal ko nag wala giléem nga am doom reyal ko ab gàtt moo ko gën mi ngi noonu comme tabaski tey bisu tabaski nga jël aw nag rey ko nga jël xar rey ko moo ko gën mi ngi noonu wallahu subhanahu wa taala alam waaw waaw bismillah naam daf ko sarxewul woon wala waaw waaw waaw waaw waaw waaw dama nekk bitim réew jàpp ne ñay tudd sama doom du ñu génnee saraxu karaw boobee sarax bi yow la war yow mi yor doom bi yow la war su ko defee yow yaa koy génne sarxe ko réew ba nga nekk wala nga wax kenn ci sa waa kër jëlal 2000 francs sarxel ma ko loolee moom da ngay gis ne nekkul loo xam ne dañ naan ci bisu ngénte bi lañ koy def heure boo ko defee rek baax na problème bi itamit duñ ne rek da nga naan thème bi lay sarxe exactement même bu doon da ngaa jël 5000 nga sarxe ko fekk yéene nga ne yow la méngoo karaw gi mooy sarax bi moom la borom bi di wax naan fa man tatawwa xayran fa huwa xayrun la ku coobarewu ci lu baax loolu moo gën ci moom fexe daal ba yow sarxe nga loo xam ni méngoo na ak sa kar wu doom ak foo ko mën a sarxe ci kaw suuf wallahu subhanahu wa taala aalam naam waaw yaakaar naa kon manis naa jël lenn ci bunt bi nga xam ne moo ci tege di bint boo xam ne ni it bunt bu sensible la mu ngi noonu muy wàllu jihaad jihaad xam ngeen ne mbokk tey moo la boo xam ne ni tey ji boo ko waxoon rek fu mu mën a doon ci réseau yi alerté nga ay service ah secret service yépp ndax muu bi rek dafa rëy allahuma loolu tubaab bi moo ko diaboliser noonu mbokk jihad nañu xam ni du dara lu dul effort jihad mooy effort bi nit ki di def looloo tax ngay dégg jihadu nafs am déet jihadu nafs ndax mooy nga jël ay paaka ki char de combat di dóor sa bopp déedéet mooy effort yi ngay def ba def santaane yi effort yi nga def ba bàyyi tere yi loolu moo tax jihad forme multiple la yor da caa bokkoo rek xeex ak yéeféer te loolu mooy guerre yi nga xam ne tey jii ñi ko jiite ci àdduna bi mooy occidentaux yi jàpp nañ ne partout dans le monde war nañ faa dem jihad ngir samp la nga xam ne moom la ñuy tudde ñoom la démocratie au nom de la démocratie ci la ñu bombardé Iran bombardé fële Irak bombardé ci Afghanistan bombardé ci un peu partout dans le monde ci cadre boobu it la l'islam gise woon ni jihad loolee lu yàlla faratal la ci xeet bi depuis jamonoy yonente yàlla Muusa alayhi salaam ba suñ jamonoy tey loolee kon ñu bàyyi ci xel bu baax ñàkk koo jàngale it danger la ndax ñàkk koo jàngale day tax ndaw ñu bari ñi dégg baat bi xamuñu nu ñu demee dem di dugg ci ay guerre injuste jàpp ñu dañuy jihad looloo tax bépp état dafa waroon a ñaax ay borom xam-xamam ñu jàngale jihad ndax ñàkk xam ko mooy jurul fitna yooyu su ko defee kon ñu jël ci ab bind mu ni wal jihaadu faridatun jihaad day farata la yaxmiluhu baadu nnaasi am baad dana ko gàddul lenn ci nit ñi ca ña ca des wa ahabu ilayna an la yuqaatala al aduwu lañ gën a bëgg nag mooy bu ñuy xeex ak noon ba xatta yudaw ila diinillah loolu fekk dañ leen a jëkk a woo ci diine yàlla ji illa an yuaji yuajiluuna lu dul ne noon ba moo ñu jëkk attaqué fa in fa imma an yuslimu kon war nañoo jihaat ak ñoom ba ñoom ñu nangoo dugg ci lislaam aw yu addul jizya wala boog ñu joxe impôt bu ñuy tudde jizya wa illa quutilu bu dul loolu ñu daal di xeex ak ñoom wa innama tuqbalu minhumul jizya dees na nangu ci ñoom jizya ba ida kaanu xaysu tanaaluhum ahkaamuna su dee nekk nañ foo xam ni dana leen mën a jot suñuy atte fa amma in ba'udu minna bu dee ne nag dañ ñoo sori fala tuqbalu minhumul jizya su boobaa kenn du leen nangul la nga xam ne mooy impo boobee illa an yartaxilu ila bilaadina lu dul ñu daa di tuxu daa di ñëw dëkk si sunum réew wa illa quutilu bu dul looloo dañ leen war a rey dañ dañu war a xeex ak ñoom mi ngi noonu kon mbokk day wax rek ni li di jihaad fi sabilillah moom la ñuy tuddee fardul kifaaya dëkk bi bu ñu amee armée bu mën a taxaw jihaad wàcc na ña ca des su dee ne nag préparé wuñu lenn loo xam ne dafay aju ci jihaad ñoom ñépp dañuy am bakkaar ndax suñu borom moo ne woon yéeféer yi wa aiddu lahum mastataatum min quwa lu ngeen man ci kattan waajal leen leen ko mu am ñaari jubluwaay jubluwaay bi jëkk mooy am kattan ba mën a tasaare diine yàlla ji ñaareelu jubluwaay bi am kattan ba mën a défendre suñu réew ma da ngay gis ne tubaab bi dañ naan qui veut la paix prépare la guerre heure boo bëggee jàmm fokk nga waajal ba am matériel de guerre balaa kenn dal sa kaw dana ko waajaat kon réew mu nekk comme ni mu amee tey partout dans le monde armée sénégalaise gis nañ ci armée yi gën a am gëdd ci àdduna bi ci lañu bokk réew mu nekk war naa préparer armée boo xam ne nii jubluwaayam mooy loolu allahuma nag suñu réew yi xam ngeen ni la ñuy doyee armée moom du wootee fi sabilillah leneen la tax ñu koy am waaye ala kulli xaal mu ne kon loolu lu war la heure bu ñu demee ci ay noon dañ leen war a woo ci diini lislaam noonu la jihaad daan demee tey jii da ngay gis américain yi biñ ñëwee dañ ne Saddam Hussein day sampul démocratie ci réewam kon ñun fokk ñu dem jihaad ak moom ba daaneel ko samp fa démocratie Kadhafi day sampul démocratie ci réewam kon il faut ñu dem xeex ak moom daaneel ko samp démocratie bi ñoom loolu lañ gëm de islam nag lan la gëm moom dafay gëm ne adduna bii dafa am boroom muy suñu boroom jalla wa ala boroom boobu am yoon bu mu tëral ne jaam yi ci la ñu war a jaar bépp société boo xam ne injustice moo fa am jaaruñ ci yoonu yàlla islam ñëw woo leen ci yoonu yàlla boobee ca njub gu mag googee su dee ne woo nañu leen ñu nangu dugg ci dina yàlla ji ñu nekk suñuy doomi ndey ñu bàyyi leen ci seen jàmm ñu nekk jaamu yàlla attewoo lislaam jàmm na ñooy deret du tuuru amma bu ñu lànkee ne déedéet ñun suñu kéeféer la ñuy sax su boobaa su dee ne ay ahlul kitaab lañu ci li borom xam-xam yépp dëppoo ñu ne leen d'accord sax leen ci seen kéeféer waaye nag dëkk bi da ngeen di bàyyi islam contrôlé ko ku bëgg a dugg ci diine ji dugg dugg ci kenn du ko bund xotaal ñun ñoo yor seen sécurité ñun ñoo yor seen aar léegi daal yéen li ngeen di fay mooy impôt annuel boo xam ne képp ci yéen dana ko fay ñu jàmmal leen lu leen neex ngeen def amma ñaar yooyu nag bu dee nanguwuñ ci benn duñu dugg ci lislaam du ngeen contrôle réew mi joxuñu leen impôt su boobaa la xeex dooga am diggante jullit ñi waaye lislaam du ñëw rek attaqué am réew commencé rey comme ni nga xam ne noonu la ñuy caricaturer jihad de par le monde loolee ñu bàyyi ci xel bu baax su ko defee bokk na ci li muy waxit mooy jizya non ñoo ngi koy nangul bépp réew moo xam ne dafa susug ñun nga xam ne dañ ko mën a contrôler ba di leen mën a aar amma bu dee fu sori la su boobaa ñaar rek mu mën a am ñu dugg ci lislaam wala boog ñu xeex ak ñoom ba fu ñuy mujje ak ñoom loolu mbokk la wax ci wàllu googee nga xam ne mooy wàllu jihaad boobee bokk na ci li mu wax ba tey wala boog ñu jël bi ñeen bind bi mu ne wal firaaru min al aduwi daw ca la nga xamee ni nii mooy bisu xeex nga daw noon ya min al kabair ca bakkaar ya gën a màgg la bokk ida kaanu mislay adadil muslimin su dee dañoo nekk rek duubulu li mu julit ñi fa aqal wala lu ko gën a néew fa in kaanu aksara min dalik waaye bu dee ne dem nañ ba ëpp duubalu julit ñi fala ba's bi zalik loolee dara nekkul ci armée bi daw replié wu wa yuqaatalu al adu des na xeex ak noonu lislaam maa kulli barrin wa fajir ànd ak bépp imam boo xam ne dafa baax wala imam boo xam ne ab kàccoor la minal wulaat ca ña nga xam ne ñoom ñooy kilifa yi féete yor kaddu jullit ñi mi ngi noonu mbokk kon day wax fii rek ne suñu demee bay jihaad yow jullit nga daw ci bakkaar yi gën a màgg la bokk su dee ne yéeféer yi dañoo yem rek ci nekk duubul jullit ñi wala lu ko gën a néew ca mooy masalan comme ni ko yàlla di waxee subhanahu wa taala in yakum minkum miatun sabiratun yaglibu miatayn tey jii ñaari ay benn détachement julite ngi nii cent lañu bi ñu demee ñu gis yéeféer yi deux cent lañu amuñu droit daw junni lañu yéeféer yi di deux mille amuñu droit daw amma nag buñ demee ba gis ne kat ah yéeféer yi kat ëpp nañ deux fois jullit ñi ah su boobaa nag amir bi am na droit joxe ordre ñu daal di replier wu ngir loolu nekkul lu yenu lu yomb doonte ne bu ñu xeexoo nit bañ rey leen loolee defuñu loo xam ne nii lu lislaam di di tere la mu ñuy wane it ne mbokk ndawal jullit it war naa doon koo xam ne nii kuy dëgër la di fexe di sàmm la nga xam ne mooy kattanam ci ay entraînement ci ay sport bokkul ak sport bi ñu miin tey waaye sport yoo xam ne daf lay may kattan may la dëgër loolee ndax ab jullit bu mu mën a doon war naa bàyyi xel ne bis boo xamee ne jihaad bi lislaam gërëm taxawoon na day danaa ci bokk yonent bi alayhi salatu wasalaam ba ñu ubbee makka daf ne laa hijra baada alfat walakin jihaadun wa niya jóge makka ji gàddaay dem madina loolu moom amatul ndax ubbi nañ makka léegi nit ki comme neex jaamu yàlla fu la nekk fu la neex lan moo fi des mooy jihaad ci yoonu yàlla ak yéene jihaad am na riwaaya buy wax sax ne ki dund ba xëy dee musul jihaad te musul yéene dem ci jihaad ku mel noonu dana dee dee jaahiliya loolu nag mbokk jullit da ngay gis ne tax na ba ndaw ñu bëri dugg ci ay xeex injuste yoo xam ne ni am na de partout dans le monde te yi xeex yi am ci àdduna bi tudde ko Daesh tudde ko Boko Haram tudde ko Al-Qaïda tudde ko ay loo ko mën a tudde mbokk yooyu ay groupe bu ndaw yoo xam ne ñoo jokk woo ci jihad waaye recensel bañ commencé jihad ba tey waatal ci yàlla ne ñi dee ci jihad ba ba quatre-vingt-dix-neuf pour cent ay jullit lañu mbokk jihad dafa ñëwoon pour sàmm jullit ñi am dafa ñëwoon pour rey jullit ñi loolu xel mënut a nangu loolu su ko defee ngal la way ndawal jullit xeex yooyu bul ca dem xeex yooyu bul ca dem loolu safaanoona ak jihaad ba lislaam xamoon jihaad bi lislaam xamoon mooy islaam am nañu am réew ñoo xam ne lii mooy réewum lislaam amir ba ko jiite dajale kattan ba ñu xam ne am na kattanu bu méngoog fa doole toll ci jamonoy àdduna comme na ko suñu borom di waxee mooy aiddu lahum mastataatum min quwa wa min ribatul xayl ba ñu xam ne am nañ kattan mu diisoo ak i boroomi xam-xamam bañ yëg ne am nañu kattanu dem jihaad su boobaa la jihaad doog a nekk farat waaye bu dul looloo li xew ci àdduna bi mooy ay faux jihaad ñu ngi mel ni rek tey aj makka aj makka ñaari jullit wuute wuñ ci ne farata la mais ndax jamono jii ku demoon ne da ngay aj dem Muna dem Arafat sànni jamra dañ naan kii dafa def naka noonu it bokk jihaad dafa am ay shurut yoo xam ne boo amul ay ndaw rek dajaloo fële def seenu groupe nekk 500 nekk 1000 fexe ba am ay armes commencé dem ji rey loolee mbokk da ngay gis musiba mënu koo paase. te xalaatkat yi xalaat yépp xam nañ ne 99 pour cent des mbooloo yooyu. ay yéefee ñoo nekk ci seen gannaaw armé leen ngir jullit ñi di reyante seen biir loolu ñu bàyyi ci xel bu baax amma nag bu doon tene ne tey buñ jox woon misaal dëkk bu mel ne Arabie Saoudite nga xam ne dëkk la boo xam ne mi ngi attewoo lislaam jullit ñëpp xam ne ñi attewoo lislaam lay def buuru Arabie Saoudite déclaré woon jihad fi sabilillah su boobaa day wareef bépp ndaw bu am kattan dem jàppale leen ci jihad boobee ndax amir la buur la ànd ki mbooloo loole mi ngi noonu na doon amir bi dafa doon jullit bu baax wala mu doon ab saay-saay buuru jullit bi même bu ñu xamoon ne day naan sàngara day lu kenn xamul sax bu wootee jihad fi sabilillah ngiree kaddu yàlla jëm kaw dañ caa war a ànd ak moom loolee mbokk moom la ñuy tuddee jihaadu talab mooy jihad ngir wooyee fiir yi am maa nag mi ñuy tuddee jihaadu difaa mooy bu dee jihaatu défendre sa bopp moom loolu moom beneen affaire la te ji am réew jullit bu mu mën a doon ñu attaqué dëkk bi su boobaa képp kuy nekk ci dëkk ba mag ndaw góor jigéen ñépp war a bokk ci xeex bi ndax su boobaa nekkatul ngir tasaare kaddug yàlla mais ngir défendre sa bopp la loolu it forme la ca forme jihad lii daal kon mbokk la ñuy wax ca wàllu googee di ñaan yàlla subhanahu wa taala yàlla yàlla defal ñu aafiya fi dunia wal axira yàlla yàlla leeral diine suñu bopp yàlla ñu yàlla wërsëgal ñu moytu lépp loo xam ne nii fitne la ñuy jural adduna ak al axira wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain alhamdulilah xam naa ñi ngi fàttali rek ne dimanche ji ñu nekk moom moo bis bu jëkk ci li ñu tuddee jumaada saniya sun maam yi dañ ko tuddee maamu koor ndax bokk na mbokk yi rawatina waa CMD yooyu doon topp weer wi ci àdduna bi ajjuma moo nekkoon sint bu jëkk waaye ne nañ yéeguñu fenn fu mu feeñ donc démb moo nekkoon trente dimanche moom la ñuy jël kon muy benn fan ci weer wi mi ngi noonu incha allah naam waaleykum salaam naam wala kulli xaal moom moo ay wax la yu bari ci li ci mën a am rek mooy nañu xam ni araamal naa la bu doon te ne ne foofu rek la yem sax borom xam-xam yu bari dañ ne sëy bi tasut borom xam koy ba nit ñi sëy bi tasut bu dee ne nag dana ko fase naa la araamal naa la heure bu ko bëggee takk heure bu ko bëggee takkaat day def rek kafaara day def kafaara leen fukki miskin wala mu daaji leen di woddu su amul mu war ñetti fan dem jëliwaat jabaram la gën a garaaw ci li mu mënoon a def mooy mun a ko yemele naa la ak sama yaay loolu mooy la gën a garaaw lu mu mën a def fase naa la yemele naa la ak sama yaay bu yemoon ci ne yéeme la naa la ak sama yaay rek sëy bi tasu donte ne wax na wax ju bon du ñaaw waaye balaa mën a ànd ak moom ci loolu dana woor ñaari weer am maa nag bu dee dana ko fase naa la yéeme la naa la ak sama yaay su boobaa kon def na ñaari musiba kon bu boobaa dañ naan balaa ko dana ko bu ko takkee balaa mën a ànd ak moom dana woor dana dem goreel jaam jaam bu ñuy goreel xaw ma ko fi wala boog mu daal di woor ñaari weer yu tegaloo ci gàttal daal moo di ne jëli jabaram leel fukki miskin ab sëyam baax na wallahu subhanahu wa taala alam naam bismillah naam waaleykum salaam wa rahmatullah wala kulli xaal dafa am ay mbir yoo xam ne ni moom wax dëgg yàlla dafay jéggi dayoo jullit yooyu bu la dalee jarul sax nga koy wax parce que c'est tellement catastrophique yow weeru koor jullit nga ne da ngaa woor ba pare di njaaloo ci biir weeru koor yooyu lu garaaw la ala kulli xaal xam na li mu def xam na ne baaxul li mu mën a def rek moo dina ne bokk na ci li borom xam-xam yi di wax képp koo xam ne daa dog ci koor ci njaaloo te moo ko tey war naa woor ñaari weer yu tegaloo même bu doon soxnaam la àndal moo ko tey def njaaloo ci weeru koor ak soxnaam di ko dagan dafa war a woor ñaari weer yu tegaloo kon lañ ko mën a wax lu gën a néew mooy nu tuub tuub gu sell ca woor ñaari weer yu tegaloo wallahu subhanahu wa taala alam naam naam bismillah ah waaw waaw bisimilah naam bisimilah waaw waaw waaleykum salaam wa képp koo xam ni dund na gannaaw baayam même bu doon ay minute day doon même bu doon da nga fekkee accident ba ñu bokk dee waaye yëg nañ ne baay bi moo jëkk a dee doom ji doom ji day doon bu dee ne nag accident la boo xam ne xamuñu ko jëkk a dee ñoom kenn du doon sa moroom waaye daal bu ñu wóoree ni kii moo jëkk a dee moroomam ka mujj da koy doon wallahu subhanahu wa taala alam naam bismillah waaw naam bon ala kulli xaal ndax obligation service militaire ba pare ñu naan réewu jullit yi luñ ko def xaw ma lan mooy jubluwaay ci loolu li ma xam daal moo dina ne service militaire lu baax la lu dagan la lu war la bu doon te ne dañ koo tuubal doon dañ leen koo tuubal mooy lan mooy tey suñu militaires yi da ngay gis bu doon te ne ne dëkk la boo xam ne nii xam nañ diine xale yi ñi defal formation seen waxtu julli benn du leen ca raw waaye day lu dul benn du ñaar ci ay xale nettali nañ ma gàllankoor yu bari yu ñuy am ci matal seeni julli ci heure formation militaire yooyu da ngay gis na loolu la deuxièmement itamit ñoo xam ni ab militaire comme ni ko tubaab bi jàngale mooy ordre bu mën a am yow da nga koy jëfandikoo maadaama chef bi moo ko wax yow tu es protégé islam gisiwut noonu islam moom daa gise ni doomu aadama bi lépp loo xam ni dañ ko ko jox ci ndigal lam cay jëkk a seet mooy lan moo ci ndigalu yàlla d'abord bépp ndigal buñ la jox mu safaanoog ndigalu yàlla war a ko exécuter waaye daal bu dee yooyu amu ci nañu xam ni bokk na ci tuyaaba ju rëy yow ndawal julit nga nekk militaire boo xam ni da nga mën a défendre sa réew nit dana ay réew daañu am jafe-jafe nga dem fa défendre leen loolee dañuy gis ne ci tuyaab yi lay mag yi gën a bokk ci tuyaab yi gën a mag la bokk mi ngi noonu wallahu subhanahu wa taala aalam naam waaw ala kulli xaal waaw yaakaar naa kon mbokk waxtu bi jot na ah waaw ñu mujj ci mbokk bi rek waxtu bi jot na waaw bismillah waaw salaam waaw problème bi mooy ji ñi ngi ñëw ci dëkk bi ne leen kaay leen dugg ci lislaam ñoom ñu ni duñu dugg ci lislaam dañuy con continuer seen diine ñu ne leen d'accord léegi nag bàyyil jullit ñi ñooy gérer dëkk bi administration dëkk bi ñoo koy yor képp ci ñoom ku majeur ñu wax ko année bu nekk na fay bu doon jamono Omar ibn Khattab benn dinaar lañ leen doon laaj bu ko defee loolu ñoom ñu continuer seenu kéefér islam nag continuer di woote ci l'islam di naxante loolee bari na ay dëkk yu bari tey ji syriens yi ngay gis ak ñu bari ñi ngay gis ak ñépp ci loolu lañ jaare bu mujj dugg ci biir l'islam loolu daal kon bu ko defee nag islam da leen di gàddul seen lépp yonente bi alayhi salaam dem ba sax ne man qatala muahadan lam yarih raihatal janna nee na bépp chrétien boo xam ne dañ koo jox jàmm ci loolu mu nekk zimmi ñu fasanteeg moom coloré muy jox impôt bépp jullit bu ko rey xetu àddina du ko du ko xeeñ kon dañ leen di yoral sécurité totale waaye nag dëkk bi moom l'islam moo koy gérer ku bëgg a dugg ci l'islam dugg ci mi ngi noonu wallahu subhanahu loolu ixtilaaf da caa am moo tax ma ne borom xam-xam yi dëppoo nañu bu dee ahlul kitaab bu dee ahlul kitaab yahut ak nasaraan moom dëppoo nañ ci ixtilaaf nag am na ci ci bu dee ne ay majuus lañu am na ñenn ñoo xam ne nii nangu nañ ko am na ñoo xam ne dañ ne déedéet ay majuus kenn du jël ak ñoom la nga xam ne mooy jizya jizya duñ ko jël lu dul ci ahlul kitaab loolu nag ixtilaaf la ci borom xam-xam yi wallahu subhanahu wa taala aalam wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammad wa ala alihi wa sahbi ajmain waaw xam naa ne takkusaan bi léegi dafa sus lool ci maye kaar bi donc dañ ko yóbbu ba mooy diis incha allah